kenn ci nekk ci turam ak santam responsable yi fi nekk yépp maa ngi leen di wax ne comme cela a été indiqué nous prenons la parole aujourd'hui au nom de la présidente du mouvement national des femmes de l'Alliance pour la République madame le ministre Ndèye Saly nous lui avons clairement indiqué parce que notre rencontre de ce matin a été, a été de bout en bout par Madame la Présidente. Nous lui avons indiqué qu'il n'était point besoin qu'elle vienne parce qu'elle tentait, elle voulait venir. Nous lui avons dit de ne pas venir parce que ku am du lakk te ñun ñi ku ñu gis xam ne mat nañu taxaw Ndeye Saly liggéey na ci mouvement des femmes bi liggéey bu am solo ku gis mobilisation bii ñu am tey nga xam ne def na ci lu am solo loolu nag bu koy def am na kenn koo xam ne waxuma sax ci ministère de la femme ba mu fa nekkee li mu fa def am na sol mais loolu yëpp bu ko mënee tey am na kenn koo xam ne bu ma ko jukkee ci ñun suñu biir ñun femmes yii rek toog yóbbaale na ñun ñëpp suñu taxawaay suñu njëriñ mooy madame la présidente Awa Gueye na taxawaay bu am solo kon président xamal ne li nga wax ñoo ko wax tënku nañ ci ñun ñëpp dañuy sof rek ndax depuis quelque temps nous observons dans notre cher pays beaucoup d'excès en tout genre en tout domaine cette situation est inquiétante car les excès entraînent les excès Cela risque de nous engager dans un engrenage dont les effets et les conséquences seront inévitables, imprévisibles et incommensurables. La violence verbale est toujours une prémisse de la violence physique. L'impensable est arrivé à l'Assemblée nationale, socle de notre nation, pierre angulaire de notre démocratie. Il urge d'éradiquer tous les symboles du mal, car l'Assemblée nationale doit être un symbole de notre consensus. C'est pourquoi excès de zèle bi ñuy gis assemblée dañ ko war a teg ci suuf ndax wër na ma ne ñi jëf-jëf ji seeni njaboot kontaan ci ki taxoon ñu koy jëf aussi kontaan ci ndax moom bu doon sagoon la mu war a def mooy nekk ci wetu njiitu réew mi yeneen leader képp koo xam ne nee nga da bëgg Sénégal képp koo xam ne nee nga da am yéene pour Sénégal tey li la war mooy taxaw ci ki nga xam ne yàlla moom la fi teg muy président Macky Sall mu nekk ci bopp réew mi nga taxaw ci wetam jàppale ko ci liggéey wóor na ma ne tey bu doon rek réew mi rek a ñu ñor loolu moo ñuy yëkkati rawatina nag bi nga xamee ne da dem ba ci péncum ndaw réew mu wóor la la la la fa bàyyi bu dul wanteeg nit ñi ñoo ci jàpp doo mën a dem kon jigéen sutura bi ne ci moom rek war na tax loo war a def lu ne nga taxaw te sa bopp xoolaat sa bopp mais ku mënul contrôler boppam koo xam ne jàpp nga ne la la yóbbu assemblée du ci xel du ci xalaat du ci wax mooy tax nga faj ko mais ci doole la période bi ñu toll biir Sénégal ku jàpp ne sama soxla sama yitte dóor rek laa ko mënee faj doole rek laa ko mënee faj kon tey xam nañ li xewoon mars 2021 fu mu jugee parce que boo jàppee ne doole rek mooy faj sa problème mars 2021 bi ñuy boom fukk ak ñeenti nit ci ñun xam nañ tey fu mu jugee te élection yii ñu dëgmal xam nañu ñoom fan lañ ko teg ci violence lañ ko teg ci xoqatal nit ñi lañ ko teg li ñu def bërki démb ci kii wane na te li ci gën a yéeme mooy booy dóor da bàyyi ba caméra yi taxaw mu leer na ne ñaawteef bi ngay def nëbboo ko da bëgg ñëpp gis ko ñaawteef nag ku koy def bëgg nit ñi gis la mooy da bëgg tiital nit ñi kon ñun nañu jóg te rafetlu nañ taxawaayu femme APR danañu jug nag sol suñu daal comme ni ko président Ndeye santaane comme ni ko présidente Awa Gueye santaane comme ni ko Angélique Manga santaane comme présidente Awa Niang nuñ ko santaane comme jigéen yi fi ne ñëpp nuñ ko santaane dinañ jóg dox dox bi bu fekkee ne góor ñi mënuñu koo dox ndax nag assemblée bi dafa fa xew mais c'est inadmissible c'est inadmissible c'est inadmissible et stop dafa doy merci.